créé yo xamante ne amul fenn ay facture yu amul fenn toujours ñu nax askan bi ci loyer motax dem bi ñep gisé chinois yi dind don de la république de Chine Les nit ñi dañoo dañu dañu dof mais fi mu ne nii mais qu'est-ce qu'on qu'est-ce que les autres ana ana procureur de la république lan lay xaar pour saisir. procureur de la république lan lay xaar pour saisir. ci kaaw Mame dañ ko jiñ sacc pourquoi procureur auto autosaisirul

yoo xamante ni bu antuwul ci la ñuy jibal ci kaw mais gis naa ay député yu ci nekk jamono ji ni di ci liggéey pour mun a fexe xool naka lañ koy seetoo biir assemblée nationale waaye ñun ñii suñu rôle ñun askan bi mooy ne dinañ bind plainte pétition yóbbu ko procureur ñu jàppal ñu ñaar ñooñu ñu jiñ sàcc tëj te ba léegi sa dara leeru donc loolu lu ñu naqarlu la lu ñu métti la mais encore une fois dafa war a jeex Sénégal président bu ñëw gën a yées sa morom Macky déception la ci askanu Sénégal bi yëpp ci côté bu ne ci côté bu ne.

ah jël réew mi géré ko sa ay mbokk sa ay xarit caxar caxatee pasar pasare alalu réew mi ah créé fii ay amul fenn wax yoo xamante ne teguwul nit ñi naanuñ ndox courant bi am na ay jéego mais état bi dégg naa dafa yoreel dafa yoreel dafa yoreel xaalis dafa yoreel xaalis Senelec donc jàpp leen ne fii ak non jàpp leen ne fii ak ay fan xëy na duñu amaat courant donc dara doxut réew mi ay màcc ci boppam te loolu mooy dëgg.

nga récupérer leen yóbbu leen INSEPS bu Thiès gymnastique Jeux olympiques yi di dans 8 ans nga crée pour mun a am ay d'or c'est c'est maintenant que ça se prépare on a une mauvaise politique sportive on a une mauvaise politique infrastructurelle on a une mauvaise politique de jeunesse parce que ñi fi je yore patch, nous ay visionnaire visionnaires, ay visionnaire affaire de mbokk la affaire de xarit ak affaire de nit nit nag La da nga koy jox je suis Je deux ans stade ba boo fay dougu da ngay fat sa bakan parce que dinañ saw ci miir lolu aussi askan bi la c'est responsabilité la parce que état rôle am mooy defar ay infrastructure wayé pour infrastructure yi perdurer dans le temps ñun suñ suñ comportement la ñun les citoyens fexe leen ba ah, ñun aussi suñu mbokku frère yi nga xamante ñom ñoom ñoo nekk ci mbirum lamb nañ fexé ba buñ fa xeexoo nañ fexé ba buñ fa toj ay bagage nañ fexé ba buñ saw ci miir yi def seen débat débit nañ xol nu ñu koy défé ba dal buñ ñu infrastructure parce que amna solo amal na ñëriñu réew mi mal mine de rien il y' a plus de 4000 ou 5000 lutteurs au Sénégal C'est important c'est normal ñu am seen jumtukaay stade de Mais defal mais politique sportive en général est faible parce que amul une politique amul projection dans le futur.